aoudu billahi min alsheytaan irrajim bismillahi arrahmani irrahim mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara te di leen ndokkeel di baalu ak di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bi di Firi Guent TV officiel ñu ngi ñaan ko am laaj ngeen jaar yoon yi nga xam ne moom lay sàkku maa ngi ñaan itam ngeen bañ maa woo téléphone fii may wax ak yow nii boo may woo rek coupé ngoon li ma doon liggéey moo tax chaque jour maa ngi demande ñu bañ di ojo ñuy bañ di woote tey def audio whatsapp comme ni ma ko sàkkoo tey bunt bi ñuy waxtaanee mooy gént garab yaakaar naa bu fekkee def ma sama téléphone euh, mode d'avion ne yow ndaw kundaa bi may woo da yàq li may liggéey tey bunt bi ñuy waxtaanee mooy gént garab garab lu am solo la ci doomu aadama Euh, ki ma njëkkee mooy góor góor bu ma ko tudd fii góor gu am soxna laay tudd góor goo xam ne am nga soxna gént gis garab ci sa kër walla ñu won la garab rek mu nekk garab gu meññ garab gu naat day fii ci yow xéewal suñu borom bu nekk ci yoon di ñëw ba illaa doom bu góor bu la amal njëriñ bu la suñu borom di sént kon baax na ci gént ñaareel bi góor goo xam ne am nga soxna gént gis garab ci sa biir kër garab bu wow garab bu màgget baaxul day firi musiba mbaa njàqare euh, di dagg bànqaasu garab wala di gor garab ci góor baaxul day firi musiba mbaa njàqare ki xat-xat wala mu dellu ci yow aji gént ci nga nekk koo xam ne danga dangay dog mbokk baaxul kon gént garab gu garab gu meññ garab gu naat ci góor dana firi palaasu liggéeyukaay su ko amul su ko amee day firi yokkute ci liggéeyam bu dee dafa gént gis garab gu wow garab gu màgget ci këram baaxul léeg-léeg dana firi feebar aji feebar juy faatu bu dee moom moo feebar ala kulli xaalin wala kum xam ko jege ci kër gi wallahu li may wax toujours gént du aay firi gént lii ñu def du aay alquran boo xam ne dara du ko diñ du lu ay boroom xam-xam gis la rek dund ak dee moom ci loxo suñu borom la nekk waaye teew lii xam-xam sax na ci euh, kon moo dellu ci góor bu dee xale bu jigéen bu amul jëkkër dafa gént gis garab gu meññ garab gu naat lan lay firi day firi jëkkër du tedd maanaam nit jëkkëru sàng nit ku tedd koo xam ne yàlla mën na ko ko may mu nekk borom këram ci dundam maanaam borom kër bu baax yal na ko yàlla defal ñu koy wut ñëpp loolu benn la bi ci topp mooy garab gu wow gu màgget ci jànq baaxul day firi échec échec benn ci sa njàng wala ci sa projet yoo nekkoon walla mariage boo doon waaj wala lu mën a doon day firi échec ci loolu garab gu wow ñaari ci ñëpp baaxul garab gu màgget gu naat moo gën garab danaa ñëw ci firi leen xeetu garab yi garab gu nekk la muy firi garabu pomme garabu sidéem garabu mango garabu banaan et cetera tey dama ñëw nekk ci cadre bu gën a général ci garab yi ci garab boobu voilà da nga gént ci xale bu jigéen bu amul jëkkër gént garab gu màgget gu wow wax naan day firi échec am na ñu may laaj ci commentaire yi naan ma dellu wax sarax yi wala boo leen firi lee gént ñu la wax ma sarax bi gis nga sarax jarul xaar sëriñ bu lay digal ak ganaar gu xonq ak ganaar gu weex ak xar mu weex ak xar mu ñuul ak yeneen euh, jarul xaar loolu nit ki soo géntee loo xam ne jàpp nga ni lu baax la sàkkal sarax ci lu baax loo xam ne yow soxla nga ko maanaam li ñu bañ nga jël la baaxul ci yow soxlaatoo ko booy sarax da ngay génne la baax ci yow lu ber xataa tunfiqu mimma tuxibbuun wa ma tunfiqu min cheyin fa inna allaha bihi alim seetal lu baax lu la amal njëriñ xaalis la walla sa armoire nga seen bu mu rafet moo xam ne loo bëggal nga ko sarax loolu baax na bu dee du gént dara del jékki-jékki léeg-léeg nga génnee ci li la yàlla jox nga saraxe sarax ci yéen a ci xol bu sedd xol bu sell bañ cee rax ngistal wala leen voilà comme ni nga xam ne noonu la ko suñu borom waxee bu leen génnee seen sarax yi mel euh, manni wal azaa waaw kay kon saraxal lu baax rek te bañ cee te yàlla kon ma ñëw ci xale bu jigéen ba tey gént banqaasu garab garab la nga gis nga gor benn banqaas ci garab bi wala nga gorlu ko benn banqaas wax ma gor garab bi garab gor ko wax naa ko ci kaw wala dinaa si ñëw baaxul ci gént surtout góor danger la lan lay firi day firi mbëggeel gu wér ci ka koy denc ëllëg yàlla dana ko may moom dana ko boole ku mu bëgg lool wala ku ko bëgg lool te yërëm ko ci wàllu sëy baax na lool benn banqaas ci garab voilà bu fekkee xale bu jigéen bu amul jëkkër dafa gént di taaye garab nga def ko taaye ko comme ni nga miinee defar fleur defaraat defaraat jardinier bu lool yow xale bu jigéen yaa gént di ko def garab wala nga gént ñu koy def garab nga gis ko lan lay firi day firi xabaar bu neex xabaar bu neex bu dee garab bu màgget la wax naa la bu day firi échec ci say mbir jigéen boo xam ne am nga boroom kër yaa ngi ci néegu sëy gént gis garab dañ lay laaj garab ga nu mel garab gi dafa rafet meññ naat nga ne waaw ñu ne baax na day firi sa jëkkër di la yàlla booleel jëkkër ju baax du garab gi lu mel nga ne garab gi kay dafa màgget garab gi dafa ñaaw garab gi daa ami dégg daa nangam rafetul baaxul day firi borom kër gi la yàlla booleel euh, ab càlleen la ku doy waar la bu fekkee nag danga gént garab bu rafet comme ni ma la ko waxee léeg-léeg garab bu rafet meññ léeg-léeg dina firi ëmb léeg-léeg léeg-léeg dina firi stabilité ci wàllu sa sëy bi nga nekk kooku wutewul ak wax njëkk ja voilà jigéen joo xam ne da nga doon sëy ba sa boroom kër génn àdduna nga gént gis garab bu rafet garab gu meññ naat baax na day firi beneen borom kër bu baax nga ne ko bu dee garab gi daa màgget garab gi màgget ñaaw ci jigéen boo xam ne sa borom kër dafa génn àdduna baaxul day firi njàqare jigéen bi doon sëy nekk ci néegu sëyam moo gént gis garab moom it dañ koy laaj garab gi mu mel garab gu naat la garab gu rafet la dañ naan day firi delluwaat sa borom kër bi nga doon sëyal wala beneen borom kër bu fekkee garab gu màgget la ñu ne la baaxul day firi sëy boobu nga jógee surtout boo xam ne nekkoon nga ci di ñaan lu delluwaat wala nga amoon yéen a delluwaat ci sëy bi day firi sëy bu delluwaat du yomb wala mu firi njàqare ak i xat-xat kon gënul ci gént jigéen ji ëmb moo gis garab moom it garab bu naat la garab bu kii la nan lay firi day firi doom bu góor ci moom bu fekkee garab bu màgget la baaxul day firi ëmb boobu ëmb bu muy am jafe-jafe la wala bu ci amee doom doom du du du du sant voilà du daal xel daal gënul ci gént voilà kon garab bu màgget jigéen ji ëmb baaxul baaxul moom voilà gént garab gu ñu gor ci jigéen ñëpp ñoo ko bokk. garab gu ñu daaneel moom lay tuddee garab gu ñu gor ñu dagg ko baaxul ci gént day firi njàqare ki xat-xat wala ñàkk ku cher ci yow fort ci yow wallahu taala ala wa alam birul ci gént voilà yi may wax daanaka lu général la ñëpp ñoo ko bokk di ci ëpp danga gént toog ci taatu garab garab gu meññ ñëpp ñoo ko bokk dana firi ngërëmu suñu borom ci yow wala atteindre sa objectif bu màggatee baaxul doo gént di defaraat garab di ko retaaye di ko jekk laat ci koo xam ne da amoon jafe-jafe ci wàllu doom ku góor moo ko gént day firi yàlla dana def soxnaam mu ëmb te dana ci am yàlla dana ko wërsëgalee doom bu dee jigéen la kazaalika day firi ëmb te yàlla ko doom bu baax ci biir kon baax na ci gént dangaa gént am garab goo xam ne nag sa garab la yaa ko moom di ko retaaye di ko defar garab yi nekk sa biir kër waaye màggetul goruloo ko day firi palaasu liggéeyukaay yi lay def ñépp ñoo ko bokk am na koo xam ne xam nga ko faatu na faatu na nga gént gis ko balaa ñu ciy ñëw comme niñ leen doon wane càngat yi kii càngat bu am doole te amul morom la ci wàllu ubbeeku ci wàllu wërsëg ci wàllu bayre ci wàllu palaasu liggéeyukaay et cetera koo xam ne xam nga ko mën ngeen jokkoo ak ñun euh, tegu ko fii nii julli fi ma ko teg mën ngaa ñëw julli <laughs> dama am ku may si commentaire naan alxuraan kenn ko teg suuf ma ko xam naa ko fii ma ko teg nii boo bëggee julli te doo laal sa yaay ci garab ci ngat bu am doole ci wàllu kaaraange rab la seytaane la jinde la feebar boo xam ne ñoom ñoo la ko teg liggéey bu la jàpp la boo ko jëfandikoo yàlla mën na la tàqale ak moom jigéen boo xam ne da nga yéex a sëy kazaalika jigéen boo xam ne da nekk ci néegu sëy njaboot tëla ci sa néegu sëy nga bëgg yàlla defal na ci njaboot yoonu ñaan yàlla mu ngi fi incha allah boo xam ne yàlla mën na la koy bu baax incha allah ku ko soxla moom mën ngeen ko bi ci topp mooy da nga gént koo xam ne xam nga ko mu faatu nga gént gis ko ci taatu garab mu tëdd nelaw walla nga gént gis ko mu toog baax na ci gént loolu dañ lay won lekk aji génn àdduna jooje nga gis mu ngi ci yemaane suñu borom ci fa mu nekk baax na lool garab léeg-léeg garab nga gént gis ko léeg-léeg garab gu meññ wala garab rek léeg-léeg dina firu ci sa melokaan yow ni nga mel yow aji gént gi laa ci jublu mooy garab yi dañu wax ne bu nekk garab gu rafet garab gu meññ garab gu naat dana firi sa jikko jikko yi suñu borom gërëm la bu màggetee am benn comportement bi dina dellu ci sa melokaan dina dellu ci sa comportement yow nit la koo xam nit ko doy waar nga gis garab ci ñëpp garab naat léeg-léeg dina kër yàlla na defal xéewalu kër ko yàlla ko yàlla may ñëpp dangaa nag sa kër dafa am jardin jardin bi gis nga fi ay am nga jékki-jékki gis fleur jardin bi di nga gis ci garab goo xam ne dafa jékki-jékki xaw yi di ruus di wat ci sa jardin laa wax baaxul day firi nit ñu añaan nit ñu soxor ñu lay fexe gënu ci gént ala kulli xaalin loolu moo delloon ci li ngeen indil tey ci wàllu gént garab mën ngeen ñu xaar ci yeneen éléments yi wa ma zalika alallaahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu